mais yàlla dafa def ñu dajale ko dajale woon ko euh, vendredi passé rek ajuma Cour des comptes fësal nañu fanweer ci ay rapport laataa loolu amoon na yeneen ni dizaine de rapports yoo xamee ni génn nañ ko léegi rapport bu ñëwee yow booy def xayma da nga koy teg xayma ba ngay def ku ci nekk am nga pàcc walla wàll boo xam ne da nga koy joué am na ci rapport yi lu ñu woowee ay recommandation ñu ne euh, procureur war naa euh, ubbi enquette ci dàngam nangam ak nangam tudd ay tur wala ay kuréel wala ay këru liggéeyukaay ci rapport yi am na ci pàcc yoo xam ne dañ lay génneel ci recommandation ne la ministère bi na fexe buy defaraat loi wala buy defaraat buy defarlu loi loi bi na jël en compte aspect nangam ak nangam ak nangam parce que nañu ko defee woon baaxul baaxul ne veut pas dire que dañ laa tuumaal wala dañ la war a téye dugal la ci kaso mais ñi yore kuréel yooyu yëpp ak recommandation yi ñu yore état du Sénégal xam lan la mën muy gouvernement bi le président de la république comme son premier ministre mooy suivre les recommandation yi nga xamee ne dugg na ci biir rapport yooyu wala génne nañ ko ci rapport yi IGE day joxe recommandation Cour des comptes day joxe ay recommandation li ñuy woowee épinglé entre guillemets am ñoo xamee ne dañ leen a tuumaal ne leen faw ñu setal seen bopp ndax par exemple bu ma jëlee Cour des comptes dañ la naan ñun def nañu suñu enquête yebal nañu suñuy nit ñu ñëw pour saytu nan ngeen doxalee ci Leral TV par exemple bu ñu noppee ne la léegi poñ sàngam ak sàngam ak sàngam war nga ko leeral yow ni ñu bindee ne ni nangam ak nangam def nañ ko loo xamee ne lënt na suñu xel ñun waa Cour des comptes wala waa IGE wala euh, bu mu mën a doon ñu may la yow possibilité nga tontu ci poñ bii nga xamee ni wax ngeen ko ci nañu gérer mbirum carburant yi nii la demee ak nii ak nii loi bi lii la wax nangam ak nangam yow nga indi say tontu mais loolu yëpp buñ ko xaymaa ba noppi. ci la kuréel yi nga xamee ni ñoom ñoo ci war a liggéey muy ci wàlluk yoon ndax am na yoo xamee ni da ngay dem ci procureur wala procureur da lay woonu muy ci wàlluk defaraat li nga xamee ni moom mooy nañuy yoree wàlluk gestion yooyee yëpp du du doon loo xamee ni li naan fisaa fisaa lay doon lu yàkkamti yàkkamti mën a am lu nit mën a yàkkamti yàkkamti tamit euh, yaakaar naa toog nañ lu yàgg gisuñu rapport yi ñu jël ay rapport tegal ñu biñ ko génneek léegi wax dëgg fa neex yàlla yàggul te am na yu des léegi lan lañ la nit ñi bëgg nañ ko aywa nañ jàpp ñëpp léegi léegi léegi nii wala nañu def lépp léegi léegi léegi non même le président la république bi mu demee par exemple ma jox la benn exemple fu ci mel ni ci mbirum foncier ba mu demee mbuurkat mais neewul nañ jàpp diw diw diw diw day teg da dafa ne nañ takk nañ dakkal lépp nañu arrêté lépp ba ñu saytu ba xam kan moo am na nga ko amee. ndax lew na wala lewul fan la jaar yooyu yëpp ñu war ko càmbar ba noppi doog a ne nag ah ay la yéwén diw la mu am yay na ko am na ci sañ-sañ ci yoon la ko amee diw la mu am faw ñu saytuwaat ko ndax na mu ko amee fa mu jaar ak fa mu jóge yëpp nekkul ci yoon bu boobaa nag ci ngay doog mën a génne ay conclusion pour man il faut pas que les gens se précipitent am na déjà lu bees lu ci am mooy le fait que ñuy génne rapport yi toog nañ lu yàgg gisuñu ko te mën nañu njort kon ci vraiment xel bu xel bu euh, rafet ni lépp luy conclusion yu jóge ci yooyu les rapports bi yoon président wax na ko wane na ko premier ministre également wane na ko kenn du ci teg sa conc donc nañ leen bàyyi ñu liggéey ci wàll woowu parce que y a pas am na yenn priorité yoo xamee ne ñu ngi ci mais lu jëm ci loolu kuréel gu nekk am na loo xam ne war nga ko ci liggéey. ñu ko jàngatee Birame comme loo xam ne c'est obligatoire pour peut-être étudier euh, dossier yooyu pour mën a continuer le travail mu wute ak ni ko ñenn ñi jàppee euh, pour peut-être benn guerre la war a fas yéenee doon wala benn règlement de compte. man jàppee ma de compte. Mhm. normalité laa ko jàppee. Mhm. maanaam réew bu normal lu normal bu amee ñu ne réglement de compte la alors que lu normalul moo doon am kenn du ci wax dara. man c'est moi ça me pose problème c'est-à-dire lu normal mooy lan ñu ne la rapport yi am na rapport yoo xam ne c'est annuel et public maanaam chaque année dafa war a génn ñu tënk ko téye ko téye ko téye ko naj ko nuñ ko mën a waxee pendant des ans des années ñu naj yooyu rapport rapports denc ko fenn génnewuñu ko léegi ñu koy génne ñu ne non non chasse aux la wala euh, guerre la wala non man je pense que on ne fait que li normalul woon la ñuy jël léegi dugal ko ci yoon bu normal man euh, à mon avis c'est il faut c'est même prématuré te même à la limite c'est gauche de parler de chasse aux sorcières parce que président wax na ko premier ministre am wax na ko nekkuñu ñu fi pour ñëw di dekk ci chasse aux sorcières di topp ay nit mais teewul lu normal war nañ ko def ba pare askan wi tamit dañu am sañ-sañu xam lii teyoon nañu ko suñu koppar moo ci dugg nañ ko téye baax na am baaxul askan wi am na sañ-sañu xam am na ay rapport yu ñu fi génne woon xoolal rapport wu euh, mbirum Covid 19 bi bañ ko génneek léegi kañ la est-ce que déggaat nga ci dara mais loolu dañ ko war a topp parce que c'est quand même mille milliards ci wàllu gestion Covid 19 yoo xamee ni. Euh, xaalisu sama xaalis dugg na ci euh, Babacar dugal na ci xaalisam keneen ak keneen dugal na ci xaalisam kii jënd na ci masque kii du jël na ne ni sama cent franc bi maa ko ci dugal ku mel ni sëñ Muntaxa Mbàkke Bachir ne ni deux cent millions yi maa leen ko jàppale keneen ak keneen ku ci nekk dugal mais loolu ñu bàyyi ko noonu rek mu sey après ñu ne noonu non chasse aux sorcières c'est pas une question de chasse aux sorcières c'est question de normal le normal nag dañ ko war a def ni ñu ko war a defee. Euh, Babacar je rappelle que ni yaa ngi bokk ci PRP euh, comme bu bu Déthié Fall comme ni ko point actu euh, bindee déjà gouvernement bu bees bi ñu teg benn weer képp la de sentir ñu woon que ni opposition am na mais actuellement ñu ngi gis des sorties yoo xam ñu ngi koy noté par rapport ak le projet bu yees bi nga xam teg nañu ko déjà point actu du ñëw ci ses propos yi nga xam mu Moustapha Diakhaté yëkkati na ko di wax un projet escroquerie entre autres ci ay kàddu yoo xam ne mu ngi jóge ci opposition bi déjà ñenn ñi également di teg di di fàttali gouvernement